alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadinil amin wa ala aalihi wa saxaabatihil ghurril mayaamin wa ala xayri xadimihi dil hablil matin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk ji li di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nu santee sun boroom subhanahu wa ta'ala julli ci Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci at mu yees mi ñaan suñ borom mu defal na ko atum jàmm jàmm xéewal ak tiranga ak mucc di ci baalu ñëpp xàq li ko bal ñépp ñaan suñ borom mu bool ñu jéggal ñu ñëpp li nu ko tooñ ci ay tooñ waaye li dox ci suñuy diggante ci ay xàq itam mu wóot na ci fayal nu ko fa innahu jalla ala taaka xadir wa bi ijabati doa daa an jadir ñaan Cheikh Mahamadou Muntaqa sun boon defal nu kiimaan ci aw fanam ak wéram matal mboolem ay naalam ak yeneem soo defee waxtaan tey wi ak jokk lay doon ci waxtaan wun tàmbali woon ca ajuma yee mu jëmoon ci li ab taalibe war a sàmm ci digganteem ak sëriñ bi ba mën a jariñu ci moom mu mel ni nag ni ab taalibe war a doxe digganteem ak sëriñam sëriñ Tuubaa jàngal nanu ko ci ni mu àndeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dana laaj ñu xam moom nan la àndee woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ànd ak moom la ko lal mooy cofeel goo xam su fekkoon dañuy wax ne cofeel mën daa jéggi dayo ñoo ne cofeel gi dafa jéggi dayoo ci nim soppi yonent bi sallallahu alayhi wa dem na bi wax ne sopp gi mu ko sopp sax mooy diineem sopp gi nee na mooy diineem diini ibaadatu ilaahi nnaasi bu xubbi muxtaari minal unaasi diini xubbullaahi ma xubbi rasul alayhi taslimaahu ma kulli rasul kon bëgg gi bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg yéen saasal nee mooy sama diine te it na bëgg mu ko bëgg doy ko koom mooy koom bi gën gànjaru gën a ci moom ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi waxe ne bi saa sallam mooy xemem téefam ci mbir mu mën a moom rek la ca xemem nabiyuna al mustafa xayrula garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu yaqiini yaqiini xubba maa laa yuxibbuhu nabiyun rasulun jaadali bil muxalladi kon wane ne kon mooy eh, ne ne kóoluteen ci moom itam fegal na ko lépp lu yónni saas la mu mooy mooy mooy xemem ci lépp lum mën a doon nee na ta mooy sama saafara moom rek lay saafara woo mooy sama saafara xol di sama saafara si yaram shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi dam la wax na tudd ko rek tudd aw turam rek mooy sama wéttal muhammad baatu muhammad rek nee na mooy sama wéttal mooy sama mbégte mooy sama nagu bët mooy sama sedd xol mooy sama ndof laa muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa acdaai wa raxaati taaha sururi sarmadan wa junnati anil mamaati wal ada wa jannati nee na turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may sama wéttal may sama mbégte may sama leeru xol may sama leeru leeru samay cër mooy sama ndox lay it mooy sama mbégte ba faawu tam mooy moo dox sama digganteeg faatu it dox sama digganteeg lor tamay sama aljanna itam xabibi anisi fi ixtirabi wa turbati shafii xadan yowman yu laaxali idaatal ba mooy sama soppe di sama wéttal te ba ma nekkee ca tukki ba waaye su mooy sama wéttal bu ma nekkee ca samay kër it kon nit ñi duñ sama wéetal waaye yonent saa sa sama wéetal mooy ki ma yaram itam ëllëg bis penc te na boo xam ne tudd gi ma tudd Muhammad rek bokk moo utur rek mooy li ma gënal ci lépp moo ma dàqal moo gën a neex gën gën a rëy ci man moo gën lépp lu ñu tudd ci làmmiñ rek tudd gi ma tudd Muhammad moom ko dàqal ahmadu haada qaala inni ahmadu fa inna xayral xawli inni ahmadu neen li dàq gën ci lu muy wax ci awlam mooy man ma ne ahmadu laa tudd rek xaala bnu cheyqi allati laa yaxmudu fi fi nafsihi siwa ismi muhammadu neen ki nga xam ne mooy sëriñam mooy waa mooy doomi sëriñam kenn santul ci boppam gërëmul ci boppam lenn lu muy tudd gi mu tudd muhammad rek mooy bokk yonent bi saa sama tur neen loolu képp la sant ci boppam waxi sunu borom ne ko yor sunu borom da yaa ma tuddee Muhammad yàlla nag ma may ci barkeem ma dëkk ak moom ba mel ni ay ñooñam ak saxaabam sammaytani bihi fa habliya bihi jiwaarahu ka alihi wa sahbihi ne ni bëgg yi ma bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama tono mooy sama kóolute mooy sama lépp ribxiya ribxiya xubbu xibbi rabbina al ahad li wacca ma laysa lahu kufan ahad tursi an il igraqi wal kuloomi mahabbati madinati madinati ulumi nga xam ne ki ma fegal lépp luy jafe-jafeek tumurankeek xat-xat ak labak lépp ak jafe-jafe mooy sopp gi ma sopp ki nga xam ne mooy dëkkub xam-xam yi tamay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel googu Musa dañ ci xolam mu di ko yëg di ko gendiku nam waxoon tan moo mahabbati lati lii haajaha rabbi lati kuliyati xadwajaha nee na cofeel gi day dolli ko waxtu nekk waxtu nekk dafay dolli ko mu di ko yëg ci xolam ba bëggoo gi fàtteloo na ko lépp lu mën a doon lépp luy mbiri àdduna bëgg fàttaloo na ko la sun boom ci su sun boom waxoon ci suyil na sox bu shahwaat ba aaya ba jeex nit ñi dañ leen a mooñaale euh, bëgg ay bànneex ay soxna ay doom ay alal ay koom ci wurus xaalis ak i fas Eh, akuk jur suñ tumaa nag nee yooyu yépp nag bëgg yonent bi saa sun dox fàtteloo na ma yooya bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla bëgg gi ma bëgg yonent saa sun fàtteloo na ma lépp luy bànneexee àdduna yunsi fuaadi xubbuhu xubbal wara fa kayfa la wa minhu ma xusi jara kon bëgg bëggan leen muy muy mindeef muy lu mën rek bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa fàtteloo na ko loola dem na ba mel na ne guddeem guddeem ak bëccëg ñooy ñooyam ci moom xameetul guddeeg bëccëg ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ak sax di sax di ko liggéeyal waxtu nekk ahnu ahmadu man saara layla bi xobbihi waxad adaa al dem na ba ne man di naa ci ñollu bëgg yonent bi saasam fekkoon bëgg yonent bi aw ñollu la man di naa ci bay kayang kayang sakirtu min xamri mahabbati nabi fala azalu fi thana bi motoni bi moo tax duma ma dañ di ko tagg mu damay sax di ko tagg waxtu nekk fekkoon bëgg gi géej la nee na lab naa ci xariqtu fi baxri mahabbati rasul wa artaji bihi radaa wal qabul xariqtu fi baxri mahabbati aljalil wa baxri xubbi abdihi lxibbil xalil lab naa ci géejug bëgg yàlla waaye lib naa ci lab naa ci géejug bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy soppeem ba bëgg na màgg dellu wax tamit bëgg goo xam ne daf daf ko daf ko giñ ci jox gi ko jox léppam giñ ci yàlla billahi alladi laa ilaha illa huwa alkarimu alalim xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam giñ naa ci yàlla mi nga xam ne kenn du buur ku may moom te mooy ki gën a tedd ki xam lépp samak dund samak faatu sama yëngu samak dal lépp jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxin na mooy aljannaam yonent bi saas mooy bi mooy farataam yonent bi mooy naafilaam yonent bi mooy leer xolam yonent bi mooy ab yóbbalam mooy ab taaram wasilati wa jannati muhammadi salla alayhi bi salaamin samadi wasilati wa junnati faridati naafilati wa sunnati sayyidina shafiina muhammadi salla alayhi bi salaamin samadi wasilati wa xudwati wa jaahi muhammadin xayra wara wasilati wa matalabi wa munyati wa jannati wa junnati wa buxyati mooy léppam rek te kooku nag mooy ki gën ku wéy gën kuy ñëw te ak seegul gëm kuy dund jamono ji nu toll sayyiduna muhammadun afdalu man mada wa may yaati wa man fii zaman nee na kookee nag sama dayetalu bi yitte sama yitte lépp moom la mooy sama càkkuteef li gën a kawe ci lépp lu may ajoo bugyati himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi mooy sama yóbbal ca sama borom subhanahu wa taala muhammadu muxtaaru zaadi li maliki alayhi salaatu ma salaamin min alxayi kon nu kon cofeel gi waxe na ko nu ne sama leeru xol ci moom lay leerloo may sama tey sama sama ëhlu badara ñooy sama àndandoo diirub dund muhammadu nuuru qalbi astandiru bihi wa rufqati ahlu badrin muddatal umri dem ba àgg ci ne def naa sama lex muy suuf si muy jaare ki dàllam yonent bi saas neen suy dox sama lex laal naa ko ko muy suuf si muy jaar na aka neexoon mu gendiku ma ci ngëneelam xaddi jaaltuhu turaban alayhi yaa laytahu laxadani bi fadlihi nee na sama sama lex moom laa koy feg moom lay fegale ab tànkam lépp luy lor dëgguy jame mbaa jiit juy fette su ci naree joggi malaal la ko ci sama lex mu jaar ci lex ba lex ba ci sa jàll xaddi wi xayit li rijlil taba min shawkatin wa yu yudahi al aqraba kon cofeel dëgg dëgg dëgg gu yemul fenn mooy loolu cofeel googi nag mu firndeele ko ci jël léppam jébbal ko yonent bi sallallahu alayhi léppam da ko ko jox jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi niam mboolem lu ma moom rek muy sama alal ba ca samay daa ak samay xelimi lépp jox naa ko hadiye yonent bi sallallahu alayhi wa jox naa ko sama ko ruux jox naa ko sama yaram jox naa ko sama samay doom jox naa samay waajur sama ñaari waajur ci lu leer nañ nag juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil may naa ko sama liggéey may naa ko sama jëmmi bopp li ko dal ci wii waxtu wi ma koy waxee ba kero may ba kero may may tàbbi ci sama bàmmeel xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xululi ramsi ne ko sama làmmiñ yow yonent bi yaa ko moom sallallahu sallallahu alayhi wa sallam sama xol yaa ko moom te gi ma lay wax nag wayu ma la niki mel ni waykat yu njëkk ya waaye ngir bëggu may wala ngir bëgg dama lay ngir bëgg la rek laka ma al janaani wala udaani kashuaraai nee na sama nos def naa ko faw ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo may wommat jëm yi topp yàlla subhanahu wa taala zimaamiyal yowma jaaltuhu abad fi yadi ahmada li taati samad ne ko yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samay kër yaa ko moom samay dëkk yaa ko moom samay barab yaa ko moom sama lépp yaa ko moom laka yaa nabiyu manazili wa mawatini wa mawadici laka bil ali mutaawida xam ne kon ñaan sun borom nekkoon ñaan naa la yor sun borom nga mayal ma yonent sa samay at ak samay weer weer joxal ma ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ma ko sama mbóot sama sama lu nëbb ak sama lu feeñ lépp ngir sàkku ngërëm hablin nabi sanati wa shahri wa hablahu sirri ridan wa jahri yonent bi saasu neen mooy sama wasila mooy sama noflaay sama mën wax ak sama leerug làmmiñ léppit moo ko moom muhammadun wasilati wa raxati lahoo balaaxati lahoo fasaxati ne ko samag dem ca géej ga yaa moom samag ñibbisi samag delsi yaa moom fiika dahaabi fiika iyaabi bila xtiraabi lakantimaa yi bu ko defee jébbal gi mu ko jébbal léppam nag mu firndeele ko nag ci di ko liggéeyal Sëñ Tuubaa ak nekkam lépp liggéeyal yonent bi la sallallahu man dannani gayra xadimi almustafa fa innani axdimuhu bima stafa axdimuhu ila duxuli aljanna daari alqaraari walmuna walminna ku ma jotte lenn lu dul jëwriñ ji liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di ko liggéeyal nam ko bëggee na xam man day jëwriñam laa ju koy liggéeyal ba keroog may tabbi aljanna kan mooy këru xéwal ga dee këru sax ga eh, liggéey boobi nag nekk hadiyaam ci moom nekk hadiyaam ci moom te it na mooy dar mooy mooy darajaam hadiyati yaa rasulallahi haaka bila raddin wa kun yaa man jaafuhul jaahu nga xam ne sa daraja rekk daraja xut yaa rasulallahi min abada hadiyati wala ya safwan at bida liggéey boobu nag nekk liggéey boo xam ne rëy na yaatu na farraxtuhu bi xidamin la thaniya laha min alxidami laysat fandiya bégloo naa ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéeyu ko liggéey liggéey ba amatum ñaareel mooy kenn dollentiwu ko te njariñam du yax ba mu yem mu yemu fenn liggéey ba nag dafa seddli ko ci ñaari xaaj mooy lim ko liggéeyal ci jëmmam ak lim ko liggéeyal ci diineem li Sëñ Tuubaa liggéey ci jëmmi yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam te mooy di ko tagg ak di julli ci moom ak lim ko liggéeyal ci diineem bu dee liggéey bi nga ko liggéeyal ci jëmmam kon mooy tagg gi mu ko doon tagg ak di julli ci moom demoon na ba atam mu nekk mu séddile ko ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi juróom benn weer yi li dale muharram ba ci jumaada thaniya lim ciy bind lépp di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weer yu mujj yi muy li dale rajab ba ci dul xijja lim ci bind lépp di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa salaatu sitta bi madhi sitta taatihi batta maha tisaa i juróom benn weeri tagg ak juróom benn weeri julli boole teg sama tànk fi ko tegoon di ko di ci zaahir ak ci baatin waaye di ko tegal xeet wi ci aw yoon loole nag ca la liggéey boo xam ne kenn fekku ko ca du ko njëkk du ko mujj ndax waxal na boppam ne ko dem ba naw sa bopp ba defe ne liggéeyal nga yonent bi saa lu mel ni li ma ko liggéeyal mbaalu ni toll sa njot ndax na la sa njot loolee sànni naa ko ci bi di la xam ne li ma ko defal ku dul man lottu nga ca man zanna annahu yakunu abada yurdihi billati ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni alxadim bi ma wana an mislihi kullu xadim lu mu wax lu ne dëgg la waaye da cee boole day tungoom seere ndax buñ xoolee rek gis lu ko dal di firndeel is Hoodoo وأشهد أن محمدا رسول الله sunu laa ilaaha illallaah sunu Muhammadur Rasuul firnde yi koy firndeel ci ne kenn dabu ko ci liggéey yéen saa sallam loolu bari na ku ne xam na ne nii doon ni mu doon liggéeyal bi sallallahu alayhi wa njëkkewu ko am na ñu ko jiitu ñu ko daan def xel man cee dem ci ko mel ni Muhammadul Busayri mel ni Kaab bun Suhayr ku mel ni Xasaan ibnu Thabit day jàmbaar lool ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sa tagg na leen kaabun wa xassaanu wal busayri xad barau wa kulluhum shiruhu nuurun wa asraaru tax mu tegoon leen bët bi mu door a jóg di ñaan mel ni ñoom ba yàgg mu ne mel naa ni ñoom ba yàgg mu ne romb naa leen wa fi xidmati jaawastu kaaban wa xasaana loolu benn firnde ci ba ko ñaareel mooy xëy na ñoom bi ñu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte liggéey ba rëy na lool kawe na dañoo ne ci seen biiri kër di xëy di gis seen njaboot moom rek la liggéeyal yonent saasam jaral tàggoo ki bokkam tàggoo ki taalibeem tàggoo ku mu xam ku mu am ne ci loxoy ay noonam juróom benn weer yu tofal ba ñu wax ne xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraxat boobu tis na lool sama kër ya rab sama kër ya wéet na sama njaboot tasaaroon te dara teguma ko lu dul liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kon lam ko jaral la jarul kenn moo tax ci lu ci kenn amut ba ko ñetteel mooy keneen ku mu doon yaa taamul sa bopp liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi moom nag nee du sama neen nee na rasulullah ci boobu moo sàkku ci mu tànnal ma ko man mii may ki koy liggéeyal raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu ma abdallahi ala li si talaba kawnil xadim lahu kon rasulullah moo sàkku ci ne ko tànnal ma sintubaab mu doon ki may liggéeyal kum doon ku nit muy nu ak keneen looy jëf lu ne ëllëg soo tàbbi aljaan da naan fagam nag léegi na ci sa bopp Sëñ Tuubaa képp lañ gis muy ñaan yàlla buñ demee àjjana sax mu fay liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawtu rabbi daawtu rabbi kaw nit dahra xaadimahu dunyaa wa uxraa li xubbin xat baral kabira xat baral kabara nga xam bëgg bëgg goo ne yett na sama xol bi bëgg gu jéggi dayo maanaam bëgg àdduna waaye bu nemee demee àllaaxir itam ma ko fay liggéeyal moom yonent bi sallallahu alayhi ko itam mooy bëggal sama xol mooy dalalit sama xel moo may dàqal lépp lu ma sib mu jëm feneen fu dul ci man xidmatu xayril aalamiina ahmada alayhi taslima karimin xumida farraxatil xalba wa nafsi tayyabat wa bi makaarihi li gayri dahabat neen sama diine daal mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine xidmatu nabil maqbuli mal yaxtaara ma assabili lay sonal samay sam sama samay sama xel tey nosu nosuk samay wax lépp mi ngi ci liggéey lu yonent bi saasa mi nga xam ne may sama ndamal xalima taabu fikri wa intidaamu kalimi fi xidmatil muxtaari faxri mi rasulullahi moom nag liggéey bi ko liggéeyal far na sama yaddeel te liggéeyal bi liggéey liggéey bi mu ko liggéeyal mooy sama yow may samay nelaw maxa rasulullahi anni lawmi taxdimuhu yaxasati wana wi sama yabu da koy liggéeyal sama nelaw di ko liggéeyal loolu loolu kenn mësu ko wax neen sama xol da koy liggéeyal sama loxo di ko liggéeyal tala ba àjjana la yaxdimuhu l fuaadu minni wal ilal jinaani wa hudaahul afyadu liggéeyal ko itam mooy samay soxla te faral lépp lu du noona dóor sikk sàkkaak lu du noon lépp liggéeyal ko mooy li faral alallati xidmatuhu ashgaali maahil fira wa shakki wal idgaali sama lépp mujj na di ngan mag gi liggéeyal yonent liggéeyal Mustafa sallallahu alayhi wa ba fegal na ma këpp ak daanu ci ci ci ak ak ak lépp luy gàllankoor kuliyati soorat ajalla xidma lil Mustafa muntu kafani sodma liggéey boobu na nga xam ne moom la ko liggéeyal kon mooy ca la mooy le la ko may lam bëggoon lépp àdduna ak àllaaxira ndax noonu bu séddle woon at mi ñaa ñaari xaaj bii di tagg bii di bi bi bii di julli ca géej gi la ko tàmbali waaye bàyyiwu ko ba ba ba ba nim delloo ci ngërëmal borom subhanahu wa taala ko ñaari mooy liggéey bu nga ko liggéeyal ci diineem bi mu jógee la wax ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu damaa ñëw ngir fas yéene liggéey yeesal diine Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ko ca darajaam diinun siwa islaamihi laa yuhmadu inda al ilahi bihi nu jaddidu diine judul diine Moustapha diine lislaam du diine fa sun borom diine lislaam jooje nag laa yeesal si nadaafatuhu kulli min allah bi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu yeesal nag kon mooy lim doon def te lu lees di yeesal diine ki àtteem ak ponkam du du du du ràpp waaye ca xol ya la su dee ba gëm yi woyof toyyu pas-pas yi yolom yitte yu suufe loolu may ràppug diine moo tax mu ñëw njëkk a liggéey ci xol yi su ma jox ko ndigalal tarbiya rabbi asxaabaka bil kon xol ya lay defar mu ñëw fexe ba feesalaat xol yi dell ak ngëm yàlla dëgëralaat pas-pas yi yéegalaat yitte yi yëkkati yitte yi ndax bil himmati lañ ko waxoon rabbi asxaabaka bil kon kon yitte mooy lépp defar ci lam lam fekkoon jamono ci yàquteeg jikko yàqoog euh, la la fa nekkoon lépp ci loo xam ne mëni su ko waxtaanee mu ñëw nag fexe ba jubbantiwaat defaraat xol yi ba mag ma defal ba mar leen ak seen boroom bañ mel ni ñu tëggaat bañ nekk ay wurus bam sant ci yàlla li yan qaada an jaabun yafuzuna bil muna wa ma aqdam sukun mawlaay asbabu maa ngi sant sama borom mi nga xam ne rek moo ma boole ay soppee xam ne defar ba ñu jag ba lañ bëggoon lépp ñu am kon dara dox dara dox sama diggante sant yàlla kafaani xafidun maaniun jumlatal ida wali xaada ahbaban bihim owahiru nuska ah borom mi aadee comme ça moom fekk sama ne ba noppi nag moom itam sopp yooyu sopp yooyu maa defar ba nit ñibbisee tuubaa ni guddi gii nuy dëgmal di guddi gi ashirina muharram ca la door a wàcc musta wàcce boppam ci liggéeyal yonent bi saa salaam yàlla na ko suñu borom fayal te dollil nu koy ngërëm ñaan suñu borom boo leen dimbale boo leen defal tawfiq xëyir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg-dëgg ay taalibeem tam nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu an laa ilaaha illallaah ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu an laa أشهد أن لا على الفلاح الحمد لله الذي أحلنا باتباع أعلم العالمين محلا منيفا ونهانا عن ارتكاب البدع والمحدثات وأمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا ونسأله كمال اليقين وألا نقطع العمر آمالا وتسويفا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجه وتوقي مقت الله وعقوبته وسخطه عباد الله أكثروا ذكر الله فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفي ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه وهو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه maa yubaddalul qawlu ladayya wa maa ana bizallamin lil abid فحافظوا رحمكم الله على كل ما رغبتم فيه واعملوا من الصالحات ما يرفع عنكم العذاب ويطفيه نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه ونشهد أنه الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المقتفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من والاه وانتمى بقرابة أو صهبة لعظيم جنابه وعلى علاه أما بعد فيا عباد الله توجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار وشمروا عن ساعد الجد للعمل الصالح قبل الفوات وبادروا بأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الممات واتقوا الله وانتهوا عما نهاكم أحكم الحاكمين saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin wa akthiru min as-salati wat taslimi ala shafi'il makhluqati fil mawqifil azim اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع المقبول الذي جعلته واسطة في كل خير وبابا لمن أراد الوصول اللهم كن لنا في حركاتنا وسكناتنا بما كنت به لخاصتك وارزقنا يا تواب توبة نصوحا ووفقنا لما وفقت له عبادك المخلصين وأسرق في قلوبنا وقلوب وفي قلوب جميع المؤمنين أنوار اليقين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم آمين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 allahu akbar allah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 هبنا asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.